kàddu taalibe rek ñëw tey indi sunu njaal man euh, El Hadj Mbagnick Diop di président MEDES mouvement des entreprises du Sénégal ma ànd ak sama ay nit tey demoon euh, jaal euh, Guy Mbind sëriñ bi sëñ Abdou Latif sëñ Cheikh Bara sëñ Moustapha dem ziar sëñ Abo xam ne mooy sama sëriñ yegg si fii nag si sëriñ bi pour ñëw non seulement jaale ko mais dalal ko di ko ñaanal yàlla yàgg fi si mi wër yàlla bàyyi ko suñu kanam c'est lépp loo xam ne nag am nañ ci mébét daal na ko yàlla ak sëriñ Touba saafara donc tey nekk na bésu. Euh, naqar mais bésu bànneex aussi kon nag daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla yan bi yàlla oyofal ko ko mu dëgër si yàlla may ko fon bu gudd wér bu yaram mu yàgg suñu kanam di ñu teete di ñu gidee ak daal képp koo xam ne rek taalibe nga def naa ne tey euh, sa xol sedd na am nañu métit mais suñu xol sedd na parce que suñu xel dal na bu ñu xamee ne sëñ taxaw moo toog ci kilaafa bi donc nag ñu ngi koy ñaanal di ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñun ñëpp ba ñu dajawaat fi déwén incha allah rabbi jërëjëf.